dañuy rafetlu d'abord bés bi nekk na bés bu yanj bés bu rafet bés boo xam dafa dajale ay équipe yo xam ne ay ndaw département bi lañu di Somone Basket Club ak Stade de Mbour ñuy féliciter ñaari équipes yi mais di féliciter particulièrement eh, ñi nga xam ne ñooy responsable ligue régionale de basket ak waa district bi parce que li nga xamné ñu ngi koy jagleel ndaw yi nek na lu ñu encourager lu ñu war a soutenir ndaxte sport fay dajalé ay nit sport da fay dajalé jeunesse bi da leen di canaliser. sport tay aussi da fa nek lo xamné métier la té gis nañ ci vraiment suñu bop bu baax. Euh, Sénégal en tout cas ci walu sport légui notamment ci football bi ci basket bi nak depuis des années ah Sénégal des na ci gise bopom euh, surtout ci walu compétition yi. Euh, motax dañuy rafetlu buñu ñu gisee cette politique de jeunesse à la base lii dafay war ne buñ ko continuer xëy na li nga xam ne ay at a ngi mu ngi ñuy xaw a rëcc di raaya yi xëy na dañ ci jot. Euh, di rafetlu aussi li nga xam ne moom la ñu gis ci fair play mais dina aussi euh, boo amee ndaw yu mel nii boo amee jeunesse su mel nii baax na nga accompagner leen par benn politique sportive boo xam ne dafay démarrer ci formation bu am solo bu dëgër mais it euh, dafay accompagner aussi infrastructure moderne parce que buñu ñu sport dañ naan infrastructure té jeunesse yi fu mu toll tey euh, mun naa ne jeunesse moy population bi donc dafa bax ñu fexé ba wutal leen ay infrastructure yo xamné dinañ ci mëna a gis seen bopp infrastructure yo xamné aussi dinañ mën a compétir euh, ci condition yo xamné duñ ci am ay ay jaxlé wala duñ ci am ay jafé jafé surtout ci walu santé ñu leen di encourager ne leen ñu ngi seen ginnaaw

du gulet guleet Sénégal yaakaar naa heure bu Sénégal amé jafé jafé ci walu euh, dundu bi euh, ci walu tamit euh, pétrole bi le gouvernement def moy wañi njëg wala fexe ko wañi parce que loolu mooy rôle mais dañu gis né de il faut ñu ñu ñu jël ay matukaay yo xamné ne mesure na il faut ñu def ben réforme bo xamné da fay nak une réforme sérieuse da fay nak une réforme bo xamné dina mën permettre ñu jéggi li nga xamné moy ay mesures transitoires ñu dem ci réforme agricole boo xam Sénégal réellement fay autonome euh, ci walu denrées alimentaires, ci walu production agricole lool nak dafa laaj ñi nga xamné ne euh, dañu nekk ci walu agriculture des instituts de formation du universités, université centres, di centre ñi nga ministère aussi de l'agriculture ak ñëpp ñi nga xam ne ngi liggéey agriculture euh, producteurs yi euh, béykat yi ñu lëkkaloo fexe ba ay produits yoo xam ci blé ci maïs ak ci yeneen culture vivière yi ay produits yi nga xam rendement dina am des seeni rendement dina am qualité dina am richesse boo sénégalais du soxlaati di importer pour mën de di du soxla aussi gouvernement saa su nekk bu ko crise bête, muy obligé di wàññi ay njëg wala di jël lu toll ni ci milliards jagleel ko subvention bi. loolu yaakaar carna bu de jëloon 100 euh, milliards wala le 200 milliards ci euh, subvention vous, dooleel ko agriculture bi yaakaar carna en un an dinañu war a mën mais nag loolu dafa laaj volonté politique dafa laaj suivi dafa laaj aussi vraiment gouvernement taxaw taxaw boo xam nous savons ne les ci résultats jëm mais tant que nous euh, avons def ni euh, di euh, jël ay mesures nous avons du que nous avons li que bëgg daal te un programme prioritaire ci Sénégal mooy une révolution de l'agriculture savons que ne Sénégal doit dépendre ci benn dëkk ci wàllu dundam ndaxte loolu dafay andi insécurité alimentaire